salaamaaleykum mbokk yi nuyu nañu leen bu baax a baax ah, ki ngeen jàkkaarloo nag kenn dootu leen ko présenté moom mooy Mbaaya ah, taalibe Serigne Babacar Sy nekk géwél bu ñëpp xam ci senegal lu mu wax lu ne dootu ci dellu ah, ñu xam ko fi nga xamee ni moom mooy Sénégal xam ko fépp ci lépp loo xam ne ay yëngu-yëngu yoo xam ne artistes yi dañ ciy yëngu ñeneen ak ñeneen di ci yëngu donc Mbaaya nuyu nañu la. maa ngi leen di ziar di leen fay lu bare bari waaye maa ngi sant yàlla bu baax. alors itam nekk nga koo xamante ne xale yi dañ lay déglu xale yi jigéen dañ lay déglu di déglu say conseil nga nekk koo xam ne saa boo génnee xale yi jàpp ci say wax loo wax lu ne bàyyi ko xale yi doo wax di ko waxaat tey ñu gis ne dëkk bi jaxasoo na xale yi surtout xale yu jigéen yi tey ñu considéré la comme seen bàjjen bi nga xam ne da leen di conseiller ñu gis ne euh, fan yi ñu génn gis nañ ay vidéo yu bono bon yoo xam ne ay xale ñoo ko def rawatina ay jigéen loolu loo ko loo ko noo ko mën a jàngatee wala euh, ban conseil nga mën a jox ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yu jigéen yooyu. Euh, xale yi ñun ñoo leen jur seeni yaay lañu seeni bàjjan lañu ay xale lañu ay tuut tànk rek lañu xamuñu dara waaye dama bëgg xale yi di ñu déglu ñun mag ñi te xam ne ñun fa ñu toogoon ba léegi ñoo ngi fa jóguñu fa te ku ci nekk dangaa bëgg sa doom baax ku ci nekk bëgg nga sa doom gën ku ci nekk bëgg nga am sa doom am lu baax xale yi li ñu def barki ba la quinze août kenn rafetlu képp koo xam ne yaay nga sa xol bi tàng na ma nga tëddee keroog nelawoo kon xale yi suñuy doom lañu yu jigéen ñi xale yu góor yi suñuy doom lañu xale yu góor yi muñal leen xale yu jigéen xale yu jigéen ñi toog leen seeni wetu ndey ndax ngeen am li seen nday yi am ñun jeeg ju mag ji bañu toogee ba léegi juguñu loolu la yàlla dogal te sëykat lañu te dañoo bëgg suñuy njaboot tamit doon ay sëykat ndax bés bi tey rek wane na ko dama bëgg bépp xale boo xamante ni di nga seetaan lii nga bàyyi ma xel jox ma nopp bi dégloo ma xol te bañ maa dégloo xel ndax bu ma la waxee te li ma lay wax boo ko déggee lu baax rek ngay am te bu fu baax rek ngay dem te ñun suñ sañoon suñu doom yi ñëpp dañ leen di seetaan partout dans le monde te loolu rafetul rafetlu ma ko man yéen ñi ay góor it rafetu leen ko ndax tey ku ci sañoon sa rakk bu jigéen du mel noonu waaye nag nañu bàyyi lépp ci loxo yàlla ak yonent bi te xam ne incha allah bu neexee yàlla xale yi dinañ leen mobiliser waat waxtaan ak ñoom di leen euh, xiir ci lu baax di wax ñoom ci lu baax ndax xale yi changé. alors lan mooy nekk tey yëg-yëgu yaay bu gisee yenn vidéo yi euh, surtout mu nekk doom joo xamante ne. Euh, xëy na da yaakaar wala doom joo xam ne mosoo yaakaar ci moom ne mi ngi ci yenn yi nga gis vidéo boo xam ne kii dalay lay leer sa doom la lan mooy nekk xolu yaay. kenn du nelaw keroog la 15 août kenn nelaw barki Serigne Babacar gëmmuma sama bët ba 5 heures du jàkk ji nodd ndax loolu ku ko xool sa xol du neex kon xale yërëm seen yaay. yërëm leen ñu ñun yaay yi sonn nañu xale yi dimbali leen ñu ngir yàlla xéerante bi def leen lu baax xiir leen seen bopp ci lu baax te xam ne àdduna bi jeex na ba pare dara desatu mag ña dem nañu ñun ñoo fi des te bëgg nañ leen a tette ngeen di def lu baax ba ca kanam a kanam kanam yaay bu nekk keroog nelawoo papa bu nekk keroog nelawoo benn xale bu góor keroog xolam xale bu góor bu gis loolu rekk sa xol tàng na kon suñu doom yi sarax leen dimbali leen te yàlla rek a tax baax leen waay. te vidéo yi sax dañoo salte. vidéo yi dara satu ci. vidéo yi dara rafetu ci. soble. vidéo wu pombiteer. vidéo wu kàkkatar. dem ba parc an jëli fa ay gaynde sax di def ci vidéo yooyu waaye yéen mbax jaxlewuñ e eh, dëkk bi jaxasoo naa xale yi regle leen xale yi regle leen man gis naa vidéo yoo xam ne ñay la jël def ci biir ci biir koo foofu kenn mënu koo wax kenn mënu koo wax li ëpp na ñay parc ña la baa la ñu dem jël ay ñay def ci biir li lu doon ndax du dañoo yàkkamti seen àdduna bëgg a xam li mbir mi saf. ma ne soo yàkkamtee li nga bëgg doo am boo yàkkamtee di daw da nga gis ku yaayam baax doom ju ndeyam liggéey muy curpi par ndànk di curpi di curpi di curpi di te du daw. dama ne wërsëg kenn du ko njëkkanti da nga koy raam di ko raam di ko raam raame di ko raam raame ba jot ci li nga bëgg. xale yu góor yi dofuñu ndayu xale yu góor yi dofuñu a ah, ku baaxul loo koy doye yow bëggoo ko takk ku boot sa yaay bëggu ko ndax xam nga lu tax ëllëg njaboot gi vidéo yi nga xam ne mi ngi fépp partout dans le monde day dem nga dem ba ëllëg nga nekk ci sa biir kër nit jóge fee ñëw dugalaat vidéo yàlla bu sa doom nag doon loo xam ne dañ koo miin ci dëkk bu boobaa sa lépp danañ ko tasaare man de sama doom du takk ku bon te yéen sama doom yii bëggaluma leen ku bon bàyyi leen ñay yi ngeen di jël di dugal ci bagage bàyyi leen crocodile yi ngeen di jël di dugal ci bagage bàyyi leen jaanu anaconda yi ngeen di jël di ci dugal yéen lii ba jàmm la dëkk bee ngi toj dëkk bi yàqu na wax leen ci lii ana Macky Sall président ana suñu ministre yi ana suñu sëriñ si ana waa Jamra fu ñu ne. waaw fu anaconda ak ak ak ñay xaj moom lu fa góor di fu crocodile xaj. anaconda duf ñay dem fa góor ñi doyee wuñ ko dara boo yeboo rek yow dem ca àll ba rek toog fa te ne ñooñu nga mérito ñooñu rek nga yam ndax lii ma gis. keneen ak keneen gis ko noo rafetlu wuñ ko nag. bàjjen yow mi nga xam ne bàjjen la la ñëpp di woowee. yaay conseiller xale yi. Euh, fi mu nekk nii damaa bëgg nga delloo delloo si xale yi ku ne toog ci sa ruq mën a gan maanaam tey nga xamalaat xale yi lan mooy ndaw parce que dañoo fonkatul ndaw. xale yi laa baa na neex. toog ba sa jëkkër jël la. fekk la nga doon xale bu ndaw. sa ndey xolam dana sedd. say famille seen xol dina sedd koñ ba nga dëkk seen xol dina sedd kon ku yabu na toog ku yabu na dal ragalumaa wax ci télé ndax man ñi ma doon fekkuma leen fi te defuma dara lu ma war ta def ci lu bon kon tey damay ragal ku ma dékk micro ma daw waaye man dawuma loolu taalibe sëriñ Babacar la sëriñ Babacar wi ma wis xorom sëriñ Babacar moo ma def ni ma mel te ku doon taalibe Serigne Babacar ci lu baax rek ana ca kaw ca kanam rek sama doom yi dimbali leen ñu ngir yàlla waay may leen ñu jàmm bi sabilillahi li waay war a suul oh. xam nga da nga ne laabaan daa neex. waaye li ko gën a neex pour man xam nga lan la ñu muur la nga dem sëyi avant nga àgg ca laabaan lool rek dafa neex. nga nga nga dem sëyi te xalaatoo euh, euh, lendemain sëy bi maanaam euh, sëyi ba ca suba sa. ñu war laa laabaan xam nga tey bu fekkee ne tey danga fees dell mu leer la ne dara jugul ci yow booy sëy da ngay ànd xel mu dal. noo laabaan dara dàq ko sa yaay muur la sa bàjjan sang la solal la yére yim la war a solal muur la sa yaay bu musta fay musta dem musta ñaan baat toog jox la weenu ndey bi nga nàmp ngarale ay tànkam nga jaar ci say sang say jaam say doomu ndey waa koñ ba nan la bintu yaa ngi dem sa dem ne xuñu foo jublu yàlla na fa yiwu yàlla jëm rangoo di toq sa yaay xam ne xale bii di dem doxiwul woon dara caaxaan doxiwul woon dara ñàkk fayda bu tëddee xol ba day sedd te dina nelaw fu 4 di du matin jotee jëm 5 heures du matin bay dugg 6 heures téléphone ba ne kar waaju baax ne ko yaay booy mu ne ko naam mu ne ko sama xol sedd na guy li ma bëggoon am naa ko kon xale yi toog leen xale yi muñ leen ndaw yàggul ay jeex dimbali leen ñu ngir yàlla bi sabili laali waa wari suri sagal leen seeni ndey sagal seeni baay jàppale seeni càmmiñ eh bàyyi leen crocodile yi ak anaconda yi ak hippopotame yi eh leen chèvre yi bàyyi leen girafe